wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rabbi inni auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi dellu nuyu mbokk jullit yépp nuyu jullit tey ñaan sunu boroom subhaanahu wa tabaraka wa taala sunu boroom defal ñu jàmm ak tawfiq ginnaaw nuyoo nag ñu ñëwaat ci sunu jotaaya tey ci yóbbalu ndaw ñi xam say farata mu mel ni sunu jotaay yi weesu jàngale woon nañ lan mooy làpp ba egsi woon ci tiim ak nañ koy defee yépp kon sunu jotaaya tey nag dañuy fas yéenee indi faratay njàpp ak nay njàpp faratay njàpp nag buñ ko waxee limam juróom ñett la kon booy lim faratay njàpp juróom ñett lay doon juróom ñett yooyu nag la ca njëkk moo di booy raxas sa kanam nga wax ci sam xel ni fas na maa yéene def faratay njàpp ngir yàlla maanaam ba ca njëkkoon balaa nga raxas sa kanam nga yéene ci sam xel ñaareel ba mooy nga raxas sa kanam ba mu daj leeraloon nañ kanam niñ koy raxasee ba mu daj ñetteel ba moo di raxas say loxo ba ci say conc raxas sa loxo yi ba ci conc yi ñeenteel ba mooy xalil baaraami loxo ya nga xalil baraami loxo yi teqali ko ba mu tooy juróomeel ba moo di masaa sa mbooleem sa kawaru bopp ba mu daj mooy masaa bu njëkk ba juróom benneel ba moo di raxas say tànk ba ci say dajoor raxas lépp li aju ci tànk ya ba ci dajoor ya xar-xar yaag yépp nga raxas ko ba mu set bañ a fàtte fenn juróom-ñaareel ba moo di cër booy raxas ci cër yooyee mu la wax muy cëriñ njàpp yi na ànd ak bomb li ñuy bañ mooy nga jël ndox ma rekk di sotti ci cër yi muy wàcc ngay bàyyi noonu déedéet cër booy raxas day ànd ak bomb juróom-ñetteel ba moo di jokkale cër ya nañu la ko waxee boo raggee ab cër teg ca ba ca des bañ a ragg ab cër bàyyi ko ba mu yàgg ba fendi nga dootu ci teg beneen cër boobaa nag jàpp la kon day yàqu kon li war mooy boo raggee ab cër balaa moo fendi nga tegaat ci beneen cër ba ci topp kon loolu mooy juróom ñetteel ba kon juróom ñett yooyu mooy farata ci njàpp yéene moo ci njëkk raxas sa kanam raxas say loxo ba ci conc yi teqale baaraami loxo ya masaa sa bopp masaa bu njëkk ba raxas say tànk ba ci dajoor yi te mu ànd ak bomb ak toftale cër ya kon loolu mooy juróom ñett yi nga xamee ni mooy farataay jàpp kon nag dañu ñëw teg ci lan mooy sunnay jàpp yan mooy sunnay jàpp sunnay jàpp yi da koy lim muy juróom-ñett kon mu mel ni sunna yi ak farata yi ñoo tolloo ñoom ñaar ñëpp juróom-ñett la kon sunna jàpp juróom-ñett la la ca njëkk mooy raxas say loxo ba ci say tikki jara tikki jara xamale woon nañ mooy lan ñaareel ba moo di nga galax ndiku mooy nga jël ndox ma dugal ko sa gémmiñ yëngal ko daal di koy yàbbi sarax topp ca mooy nga xëcc ndox mi ci say bakkan tuuti fiiru topp ca mooy nga bàyyi ndox ma nga xëccoon ci say bakkan mu génn mooy fiiru massa say nopp topp ci biir ak biti juróom benneel ba moo di balaa ngaa masaa say nopp nga yeesalaat ndox ma ci say loxo maanaam boo masaawee sa bopp ba war a masaa say nopp nga yeesal ndox ma juróom-ñaareel ba moo di boo masaawee sa bopp ba ca sa dox nga delloo si waat masaa bi loolu mooy sunna delloo si googu nga koy delloo si sunna la juróom-ñetteel ba mooy toftale cër ya cër yi farat ca farata ya maanaam cër bi war a jiitu nga jiital ko teg ca ba ca war a topp bañ a jël yooyu ya mujjee jiital ko jël yi njëkk mujje ko loolu lañ ci bañ kon yooyu mooy juróom ñett yi nga xam te nii mooy sunnaay njàpp buñ ci baamtuwaatee mooy la ci njëkk mooy raxas say loxo ba ci tikki jara yi galaxndiku saraxndiku fiiru masaa say nopp yeesal sa loxo booy masaa sa nopp yeesal googu nga yeesal ndox mi ak delloo si masaa bopp ba ak toftale cër ya boo ca te bu njëkk nga njëkkee ko te ci topp nga teg ko ca kon juróom ñett yooyu mooy sunnay jàpp kon sunna yi ak farata yi ñoo yam ci ab lim ñoom ñaan ñëpp juróom ñett la bu nekk lim nañ ko kon loolu mooy faatay jàpp te loolu it mooy sunnay jàpp kon mu mel ni dañuy del si sunu jotaay bii ñëw xam ne lan mooy faratay julli ak ñaata la insha allahu rabbi kon nag dañuy wàcce kàddu yi fii di wax ne lépp lu fi jub rek ci suñu borom la lu fi dëng ci suñu jëmm yu xeebu yii la ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala feebar bii nga xam ne moo dikk ci réew yépp ba jaaxal leen suñu borom teggi ko teggil ko jullit ñépp teggil ko réew yépp rawatina nag jullit ñi mu nekk loo xame ne nag dafa laaj jullit ñépp delluwaat ci yàlla suñu boroom subhanahu wa taala fàttaliku ko tuub suñuy bàkkaar te ñaan suñu boroom subhaanahu mu teggil ñu tiis wii ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne ñaan kat mooy ngànnaayu jullit kon jullit ñi nañu tuub seeni bàkkaar tuub lépp luñ doon def wàcce seen bopp te jëm ci suñu boroom te ñaan ko mu teggil ñu tiis wii incha allahu rabbi yàlla mën na ko te yàlla nañ ko defal muy feebar bi xam te ni mooy Covid 19 kon ñu ngi ñaan suñu borom teggil ko réew yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barkab Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul in uridu ila al islaaha ma stataxtu ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh